monsieur le délégué général, autorité religieuse et coutumière. Euh, monsieur général, je tenais juste à vous remercier d'abord par rapport à l'accueil chaleureux que vous avez réservé à cette caravane de Mayumba. Euh, nous sommes arrivés un peu tard et nous avons vu à notre arrivée les autorités nous accueillir, ce qui nous va droit au cœur. Je voudrais, au nom de son Excellence, M. Mam Oumar Tchao, ambassadeur de la République du Sénégal au Gabon, remercier les autorités gabonaises pour les facilités et l'accompagnement qu'ils ont accordé aux organisateurs de cette caravane. Facilité et accompagnement qui montre une fois de plus, les relations solides que nos deux pays entretiennent depuis plusieurs décennies. Cheikh Hamadou Bamba a fini de constituer un ciment entre nos, nos deux peuples et en atteste le nombre important de compatriotes sénégalais qui se sont déplacés pour euh, participer à cette caravane. Je tiens juste pour terminer à demander à tous les euh, pèlerins de ne pas oublier de prier pour que je continue à répandre la paix et la prospérité au Sénégal et au Gabon. Monsieur le délégué spécial, merci l'évêque du diocèse de Mula. La délégation qui constitue ce pèlerinage euh, vient par ma voix vous remercier. Vous remercier d'abord parce que en amont, il y a eu le jumelage de la ville de Touba et la ville de Mayumba à travers les déplacements des deux maires, c'est-à-dire le maire euh, Pontalier ici présent, qui a fait le déplacement pour Touba, et le maire de Touba qui est venu ici à Mayumba. Ce sont des événements historiques que nous ne devons pas négliger. Nous voulons aussi remercier L'accueil euh, que l'évêque nous a réservé. Parce que nous avons démarré un peu tard, mais l'évêque est resté de 15h jusqu'à 1h du matin pour attendre les mourides à Mayumba sur le site de Saint-Odile. Nous voulons vous dire merci, monsieur l'évêque. Nous voulons dire merci au, à l'adjoint euh, du délégué spécial qui a voulu nous donner des espaces pour héberger euh, les membres de la délégation, euh, les officiels de cette caravane. Et je voudrais dire merci, merci à monsieur le délégué spécial qui est mon professeur d'anglais, mon collègue professeur. Euh, je vous dis merci. Nous vous disons merci. La délégation euh, qui constitue aujourd'hui ce pèlerinage vous remercie parce que vous êtes l'autorité municipale de cette ville. Arriver ici sans votre euh, bénédiction, parce que là c'est la bénédiction que vous venez de nous donner, nous vous disons merci. Merci infiniment. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour... Euh, avoir accepté, parce que euh, ce matin, je disais à quelques membres euh, qui constituent notre délégation que nous avons euh, une double bénédiction en ce jour. Cette cinquième édition a une double bénédiction. Nous avons la bénédiction de Cheikh Amadou Bamba, qui a vécu ici à pendant cinq ans, mais nous avons aussi la bénédiction de Issa qui nous donne sa terre, c'est-à-dire à travers, à travers l'espace de Sainte-Odile, parce qu'il est le propriétaire. Hein? Jésus-Christ est le propriétaire de Sainte-Odile. Donc on reçoit double bénédiction, la bénédiction de Cheikh Amadou Bamba et la bénédiction de Issa. Donc euh, vraiment, euh, merci, merci pour notre séjour que vous rendez agréable. Merci infiniment. Merci. Alors, euh, chers parents, ces deux familles, la famille du Sénégal et celle du Gabon, qui euh, suivent les traces de leurs ancêtres, euh, les traces de l'histoire. Et les traces de l'histoire sont constituées tout simplement par oui, le nom, ce nom historique, ce nom grand et fort ce nom qui rassemble, comme le nom de Dieu, c'est Cheikh Ahmadou Bamba. Euh, aujourd'hui, tout est fait pour que tout soit beau, tout soit bien, tout soit agréable, tout soit dans l'amour de Dieu. Et nous concluons. Tantôt, je disais, euh, alors descendons et il y a la nature qui, euh, certainement, qui nous interpelle. Mais je voudrais vous présenter et vous offrir ici un présent qui pourra encore euh, marquer l'histoire, l'histoire de notre rencontre, l'histoire de, no de notre euh, vie, l'histoire du combat. Euh, ce combat-là, moi, je le mène encore. Si vous ne le menez pas, tant pis pour vous. Voilà. le, le combat contre le combat oui contre la misère contre la pauvreté le combat oui contre le sous-développement nous le menons parce que le Cheikh avait commencé ce combat-là par la résistance solennelle voilà et déterminée pour la libération des peuples et voilà ici vous voyez à 20 mètres d'ici il y a une bête c'est un taureau de trois ans que nous offrons à la caravane. Merci beaucoup. Alors, nous vous infiniment et on ensemble. Merci. gis ngeen ni bi xëyee rek caravane bi dañoo ñëw ànd ak mbooleem euh, njabootu sëñ Tuubaa gi ak maam Cheikh Ibrahima muy lenn waaye bi ñu ñëwee ànd ak ñi nga xam ne mooy caravane bi fii ci euh, Mayomba ñu ñëw maire bi dalal ñu waaye gis ngeen colonel ki nga gis ni tey grade yu bari la am waaye boo déggee li mu wax ci sëñ Touba xol xol yi sedd xel yi dal waaye lii lépp rek mooy moom sëriñ bi mooy gañe guerre bi. gañe gi mooy ay traces la ñuy topp waaye nag bisub tey bii li ci gën a symbolique dégg ngeen sëriñ Cheikh Khadim Fall barki dem mu wax nu ko bis bii tey mooy le 19 juillet ci la sëriñ Touba làqu woon loolu sax war nañ leen koo xamal ñoom ba xam ko ndax bisub tey bii la sëriñ Touba làqu woon ci la ko sëñ Modou Moustapha voilà bisub tey bii la sëriñ bi làqu woon ci weeru tubaab bi muy 19 juillet muy bis bu tiisoon ci yoonu murit kon bu sëñ Muntaxa woowee mboolem luy Baay Faal ne nañu ñëw ànd ak moom biir njaarim ga sëñ lakko làqoo nun nag nu ñëw fii nga xam ni buñ doon seet ci li norme li nga xam ni mooy yoon li logique ndax yàlla kenn du ko kenn du ko gëmee ci li logique yàlla liñ ko gëmee lépp mooy li nga xam ne yan wut maanaa doomu aadama man ko ci leen gëmee yàlla waaye tey indi fii nit mënoo ko fee sànq ndax tey 19 juillet bi fii la waroon a doon sëriñ Koso Mbacke moom sëñ Mountakha magi sëñ siru mi dan fee ànd mu ñëw ba fii daal di toom yàgg tuur xéewal loolu sëriñ Cheikh Mbengue Baye Fallou maa yomb ba fekke na ko di ne maam Mor ma ne ko Mbacke mu ne ma li waroon a doon yoon mooy dañoo waroon a ñëw ne dañuy seet si jeexiti sëñ bi ñu ne boo leen noppee siyaar leen jal bi ndax fi waroo fee indi nit mukk mu dellu siwaat ci ay mbokkam kon bu ñu demee bay fàttali ko 19 fii